ànd ak Aliou Sané ak ngeen ñëw wuy si njiitu réew mi eh, ci woote bi nga xam ni eh, mu ngi koy woo Sénégal yëpp ngeen nekk mouvement citoyen ginnaaw bi ngeen waxtaanee moom ba déglu ko rawatina eh, mesure yu am solo yi nga xam ni jël na ko mu jëm ci askan bi jàppandi ci justement waxtaan bi ngeen sekk ak réew mi waxtaan bi ñu amoon na solo ginnaaw bi ñu ñëwee wuy si xamal nañ ko ñu ci lan la ñu nekkoon ak ci li ñuy fas yéene continue di nekk yàlla def na kuréel gi ñu bokk muy yanamar am na ay artistes yu bëri am na it ay taskatu xibaar jël nañu artistes yooyu dajale leen ba ñu tëgg ay morso def ko ci mbirum sensibilisation dinañ ko di ko wéyal ñi nga xam ne it ci wàllu information la ñuy yëngu ñi ngi def ay capsule di ko jàllale ci réew mi fépp loolu suñu wàll suñu wareef la

doon ñaawal yenn force de yi ba mu jur ay gilaawaale ñu wax ne ñaari boor yëpp kontaan nañ ca nañ ko doxalee mu wax ne jël nañ ci ay mesures ñu xamal ko ne ko ni boo gisee yu bëri am transport bi moo nekkoon jafe-jafe yi mu wax ñu ne dinañ faj mbirum transport bi ak Dakar Dem Dikk ñu wax ko it ne fond bi ngay jël pour tasaare ko ci askan bi baax na am na solo waaye na leer na nga ci boole ñi ca war a bokk ba séddale bi du am parparloo bu mu wéeru ci sa bourse familiale yi ngay joxe na tas ci Sénégalais yëpp ku ne mën see ci sa bopp dem nañ ci sax ba ne ko soo munee xool denrées de première nécessité yu jëm ci meew ceeb suukar doolin nu ko état mën a wàññee ci weer yi ñu jëm pour yombalal Sénégalais yi ay it facture ndox ak facture courant moom fexeel ba Sénégalais yi bu ñu ko fay ci mois yi di ñëw ci trois mois yi bu ko benn Sénégalais fay ndax loolu mooy tax soo jàppalee entreprise yi ñeneen ñi ci ñi nga xam ne seen entreprise informelle la ñuy yëngu ci ay salon de coiffure ñuy yëngu ci guddi ñi nga xam ne seen liggéey dëbbal dëbbal la ay góor la ñooñu seen entreprise xëy na répertorié wul leen waaye boo leen teggilee coonoy facture wàññil leen dund gi ñu war a mën a jënd pour seen njaboot su boobaa ñoom duñ yëg jafe-jafe yi wax nañ ko it ne ko buñ jógee ci lii président nag fexeel plateau médical bu Sénégal bi nag répondre nag vraiment pour ñu bàyyi di fajo yi ci biti ndax it ñoo comprendre ñëpp di ñëw di jàngee fii ci suñu université faj bu ñu yeggoo hôpital yi ñoom baax suñu feebar fii dem fajoo ji fële mu ne jël na ci ay ci jël ay mesures ci dina jël ay mesures dinañ ko dinañ ko bu baax wax nañ ko tamit vraiment mbir mi mais sénégalais dinañ ci ko

Merci. Djeradjef Moudonon, donc, Kadou euh, Omar Cyril euh, Touré, plus connu sous le nom de Tchad. Moudon Wahn, donc, Tchiwolof, euh, Tchitourou, mouvement citoyen bi di Yanamar, Mou Andonak, Aliou Sane, Ak Astoufaï, Nyom, Nyom, donc, Tiawal Sifi, mouvement Yanamar, du mouvement citoyen, Nyom, Itam, Nyom, Deglou, Djitouréoumi, Indale, Itam, ay proposition, Mou Amnak, ay Ndiakhare, Yohamni, Indale, Wonniko, mais Djitouréoumi, Jalon na devant ba rassurer len ci yenn yi euh, rawatina walu transport sank ñu ko doon wax njiitu rew mi jël décision euh, mobiliser lu mooy lu tolli ñetti téeméeru bus yu Dakar dem dik ngir justement jàppale askan bi bu ñu liggéeyee ba waccu ñu wara mëna ñibi ci jàmm ak salam Voilà, sinon en français, il y a Aliou également, qui a fait le résumé justement de ces concertations avec le chef de l'État et il y a beaucoup de points de convergence entre ce mouvement citoyen et les mesures jusqu'ici prises par le président Macky Sall. On reviendra que le mouvement Yanamar euh, se dit euh, en phase là là dire totalement à ces mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la pandémie du Covid-19 ici au Sénégal. Euh, au-delà de la revendication, le mouvement Yanamar également est connu pour être une force de proposition. Il y a eu des propositions qui ont été émises maintenant à charge à l'État de de voir comment traduire en acte ces propositions tiendra parmi ces propositions euh, euh, la, volonté du, mouvement Yanama euh, qui souhaite que les factures d'eau et d'électricité soient exemptées au peuple sénégalais pendant ces trois mois à venir. C'est une proposition qui amène, qui amène du mouvement Yanama et puis qui a été proposé au chef de l'État. Donc maintenant, on verra quel suite sera donné à toutes ces propositions-là. Euh, bien évidemment, le dernier mot, la décision finale revient au président de la République qui a une vue euh, plus globale de la situation pour notamment euh, prendre la meilleure décision qui puisse arranger tout le peuple sénégalais. Voilà donc Ibrahim Djeju, on va vous redonner l'antenne momentanément de temps d'attendre la fin de l'entretien que le président de la République est en train d'accorder. Euh, aux euh, cultures urbaines, à la délégation.